ma duggee département Foundiougne ba tey sama xol dal na ci li ma gis ci Fatick waaye li ma bëgg fii élection bi di ñëw dafa am ay enjeux yu ci nekk bokk na ci enjeux yi gannaaw jox ñu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale bokk na ci enjeux yi dafa am ñoo xam ne Sénégal dafa war a tourner par seen page politique dafa am ñoo xam ne war fu ñu taxaw fii di wax politique. buñ leen fi génnee ci duma leen wala pexe leen xam nga ni leen fi génne jox leen zéro virgule zéro zéro pour cent ci élection bi leen fi génne bu ko defee ku ciy demati élection gis ngeen ñoom sax xam nañ affaire bi lu dox moo tax ñi nga toog Dakar ndax ku ci amoon tuuti xaalis yaa ngi naan du ma yàq xaalis bi ci mbir mi su ma demee du sotti kon enjeu yi ak défi mooy liggéey bi ñu commencé il y a 10 ans te li xew le 24 mars doon rek premier mi ñu am ci 4-0 waaye ñun suñu football ñun ay allemand lañ allemand bu la jekkoo da lay doon 10 bu la jekkoo 10 lay nga xam ne saa yu ngeen di dajewaat day am avantage psychologique ci yow yaa ngi xalaat 10 ya loolu laa bëgg ñu def 54 pour cent ya effacé leen jàppale ni lu tuuti la fi mu ne nii 70 pour cent la ci élection bi incha ak lu mu tuuti tuuti 150 à l' nationale est que waa Sokone jël nañu engagement ni ñaari député yi nga xam ne mu war a soqe ko Foundiougne waa Sokone est-ce que waa Sokone jël nañu engagement.